foncier bi dafa doy waar problème yi dafa yàgg te réglé wuñ ko te pour ñu régle ko il faut mu am courage mhm. mu am autorité yu taxaw taxaw ne dañuy dama koy régle parce que daf boo ko laalee dafa am ay pression yu ñu lay teg dafa am ay intérêt yow mi sa bopp man mii nii di wax nii tey buñ ko defee dina ma dal indirectement wala directement parce que mhm. am naa benn xarit am naa benn mbokk am naa benn partenaire boo xam ne business businessman la il a des ses intérêts. Mm-hmm. il faut ñun ñu sacrifier suñu ay intérêt bopp teg intérêt Sénégal pour suñu ay doom ay sët. Mm-hmm. dëwén tey jii foncier bi administration je peux dire les services techniques de l'État muy domaine muy cadastre muy waa direction des eaux et forêts muy préfet yi muy euh, service technique yi nga xam ne yëpp service des eaux et forêts. Mm-hmm. ñoom ñëpp ak les collectivités territoriales les collectivités territoriales ñoo ci jiitu sax. ñooñu ñoo téye foncier bi. loi yi am na leer na nañ. Mm-hmm. Sénégal mosuñ am problème mu texte. am nañ ay loi yu dëgër. Mm-hmm. yoo xam ne problème bi mooy duñ ko appliquer. dañ koy contourner pour des intérêts personnels. c'est vrai que loi war nañ ko di évoluer. Mm-hmm. parce que contexte yi bokkul. exactement et aussi actuellement économie bi. wala agriculture bi mun na laaj ay euh, mbir yu bees yoo xam ne pour ñu def ko il faut ñu actualiser loi bi mhm. bu boobaa ñu def ko mais loi am na boo xoolee foncier Sénégal trois catégories foncier moo am mhm. ñu bari duñ si duñ def la mhm. am na lu ñuy wax le domaine national nga xam ne kenn moomu ko maanaam immatriculé wuñ ko si turu kenn nii turu état nii turu particulier loolu domaine national mooy presque bi loi bi amee loi 64 moom moo ko def loi 64 la loi boobu noonu bi muy am presque 90 pour cent des terres ci domaine national la bokk. d'accord mooy terres yi nga xam ne mu ngi si dafa am quatre catégories si domaine national domaine des terroirs mooy yi nga xam ne dañu fa dëkk. Mhm. mu am domaine classé mu am domaine euh, zone urbaine yi nga xam ne mooy communes yi ak li ko jege. ak mu am euh, domaine des pionniers mooy yi nga xam ne dañ ko réserver loolu mooy domaine national. Mm-hmm. au de domaine national am na domaine lu ñuy wax domaine de l'État mu am beneen domaine bu ñu naan domaine des particuliers. Mm-hmm. léegi domaine de l'État mooy lu ñuy wax le domaine piblique nga xam ne c'est des titres yoo xam ne état moo ko moom et le domaine privé de l'état mm-hmm. mooy titre foncier yi nga xam ne état moo ko moom mooy immeuble yi. terrain yi nga xam ne ay immeuble état moo fa nekk. Euh, domaine public yi mooy hôpitaux yi marché yi terrain yi stade yi yooyu noonu destination bi warul nekk à usage privé. Mhm. destination bi service public la nekk. mais gis nañ ne au bénéfice de ay inspecteurs des impôts ñooy ñëw am seen ay courtier bu ñu demee ñu gis ay poches ci dëkk bi ñu dem defal leen ci ay ay boobu. te loolu c'est interdit par la loi. justement ce par rapport au comportement des uns et des autres. voilà loolu c'est parce que domaine public boo ko waree utiliser lenn nga si mën a def mooy ay concessions. Mhm. nga mën a def à des investisseurs ay boo yoo xam ne du yàgg peut-être ay vingt ans. Mhm. nga xam bu temps bi jeexee ñu dindi ko donc dañuy jël di spolier le domaine public de l'État ci domaine de l'État boobu noonu dafa am lu ñuy wax ci biir domaine. publique dafa am lu ñuy wax domaine public maritime. Mhm. moom la ñuy wax littoral. mooy littoral bi. littoral bi loi bi daf ne géej domaine public maritime géej gi yëpp la. Mhm. géej gi la euh, fleuve yi ak à cent de la mer. Mhm. cent de la mer boo jëlee corniche u Dakar. à 100 mètres de la mer gis nga beaucoup d'immeubles. beaucoup de maisons yoo ak un commerce. donc man bu ma déggee ñu naan dañ fa am ay titres fonciers c'est faux. foofu mhm. nit mënu fa am même bu na am na ku dëngal mhm. bu nekkee titre foncier la ñu ne titre foncier da lay jox droit kenn mënu ko jël kenn mënu ko jël kenn mënu ko contester lenn lañ ci mun mooy exproprier pour cause d'utilité publique. Mhm. indemniser la mais loolu du titre foncier.